30 euh, mooy doog jot euh, ñu waxtaanee euh, bëccëg bi nga xamee ni ñoo ngi ko jagleel xasaayid ak Serigne Mbacke Diop Mbacke ñu ngi lay nuyu kontaan ci sa teewaay tey ci plateau bi ñu ngi jëm nag ci événement bu am solo. waaw Pape Cheikh maa ngi lay fay du nuy képp koo xamante ne yaa ngi seetaan télé bi. Mhm. rawatina ñii toog ci plateau bi. Mhm. maa ngi leen di ziare tey ñaan ci réew mi jàmm. Mhm. di ziare Serigne Sidil Mokhtar Mbacke mi fi toogal Cheikhul Khadim. yàlla na fi yàgg te du nuyu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. comme noonu nga ko waxee rek noonu la demee ci journée xasaayit boobu nga xamante ni moom la ñu def fële ci Sorano. woo fa nag képp koo xamante ni jullit nga. kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah rek woo nan la fa. lu tax ngeen def ko journée xasaayit. waaw journée xasaayit peut mooy sama neuvième édition. waaye maa ngi koy door a indi fii Sorano. olof nag danaan ku yokkul yaa wàññi. te mbiri Serigne Touba comme ni nga koy waxee rek. Mm. amul tànki ginnaaw. aslaf sax boo ko yokkul ko wàññi ci ay mbiram. tànki kanam la. Mm. ndax ba may tuut tànk ba tey damay woote di def journée xasaay. Mm-hmm. ca fa ma dëkk. Mm-hmm. muy Sicap Mbao Tëlimam Jaara. Mm-hmm. ñuy dem di dem di dem ba sa borom defal nu ñu ci gis ak tawféex ak yokkute. macha allah. ñu ñëw nag indi ko fii Sorano te ñaan nan bu déwénee sax ñu yóbbu ko Grand Théâtre. ah naa nekk de bu la neexee noonu lay demee voilà euh, euh, dat bi euh, le kañ la. mooy le 10 mais le 10 mais ah. le 10 mooy. Euh, euh, dimanche dimanche soobee maanaam ginnaaw suba. Euh, dugg bi nu muy demee par entrée la da ngay woote par invitation wala. waaw xam nga dafa am loo xamante ni fii laa koy wane. Mhm. pour nit ñi gis ko. Mhm. ndax Pape. Mhm. ñii nga xamante ni ñooy tagg yonent bi alayhi salaam. dafa am cër bu rëy bu na am fii ci Sénégal. Serigne Saliou Mbacke mu baax ma moom nga xamante ni moom laa dippee bis bii. da daan wax ni saa yoo leen toogee bis déggu leen xas xaside Serigne Touba yi jàpp leen bis boobu kon laa dina di tukki. kon loolu kenn mënu koo fay ci àddina. fan yii paas dañ maa invité benn télé. ma toog fa. xam nga boo boo boo boo amee xew-xew yu mel nii. ku la woo la sëñ bi dama laa mere wala ndàngam da ngay tiit. am ku ma woo ne ma sëñ bi a mun ne ma yow ku la mere laa. ma ne ko sëñ bi ba jàmm la mu ne ma dama laa mere ma ne ko lu tax mu ne ma yoroo ngaa woote sant Serigne Saliou di ko defee Sorano ma dégg ñu naan da def ay carte barkeelu ñeenti téeméer ma ne ko waaw mu ne ma damaa bëggoon ngir jëmmi Serigne Touba nga def ko fukki junni ma daal di giifaat ma ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ma bari na ñoo xamante ne tey ñi ngi ci réew mi kalimatu laa ilaha bi ñu fiy tudd moo tax réew mi am jàmm tey boo wootee foofu ñu fay jàng alxuraan à partir de 15 di wàcce kaamil sunu paree def conférence yi ku mel ni sëñ Mamour Mbaye ak ki nga xamante ne mooy Saliou Samb sunu paree dugg ci njàngum xaside yi muy àla Cheikh Diop Mbaye ak Assa Samb ak Khadim waaw bëgg leen tereel waaw bëgg leen tereel ci bis boobu rek. ak sa dof la. <laughs> Mhm. ñoom daal ay dof Serigne Touba lañu. bëgg leen tereel ci bis boobu. Uh-huh. moo tax sax ñu def ko ay carte barkeelu luñ ci am delloo leen ko joxaat leen ko addee Serigne Touba. incha allah ndax am na numéro boo xamante ni buñ ci a des expresso la muy 70. 451. Mhm. Mhm. waaw waaye gisuma nag euh, maanaam euh, képp koo xamante ni sëñ Tuubaa nga mhm. nekk fii ci réew mi mhm. ah wallaay asim seetaanoon ma ci nag ndax sama nijaay mbàkk yi fay mhm. jëwriñ masaalikul jinaan daf maa njëkk a woo ne ma ah loolu ngay def de man maa ci njëkk a barkeel wallaay wallaay wallaay wallaay azim Cheikh Amar noonu ba biig ci guddi Kader Ndiaye ne ma man li may barkeelu ci jëmmi sëriñ Saliou Mbacke jox naa la bee maa ñoom dañuy xëccoo Serigne Saliou bee maa mu ne barki Serigne Touba Mbacke ah. billaay wallaay bii ci guddi la ma wax loolu. man ak naar jot ñu ngi waaj boobu ba tey. waaw sa xarit démb mi ngi lay nuyu. a dem ren de. sa xarit mi ngi lay nuyu daal dañoo a dem ren. non mais xam euh, parce que yéen ñaar bokkoon ngeen classe. di ko xamal lépp. Euh, ah ko nag kooku sama xarit la nag. Euh, dan ma cee seetaanul benn. Pako jóg seen caam ne ma damay dem kër Serigne Touba gi nekk Colobane. Mm. ndongo Serigne Saliou Mbacke yëpp jënd naa 300. carte barkeelu jox leen ko mhm. sa xarit démb uh-huh. Umu Kalsom Ndiaye uh-huh. maa ngi ko fekk ko fay fii ci këram uh-huh. ñu ne ma bis boobu ñun ñu ngi koy waaj. kenn du leen ci gën. ak Alassane ak Alassane Mbaye nag. nekk ku baax nag. Eh, eh. waxuma la dara ma sekk ci am. Eh, fondation Kër Rassoul. waaw ah, xaritu El Hadj Mbaye Gar. barki Seydina Mohamed ak Penda Dogo mii soxnaam. Mhm. ne ma fondation Kër Rassoul gépp mhm. ñun ñoo leen jëndal. carte barkeelu ngir rasulilah. lu mbàcc li sama jigéen nekkal waa Géejawaay. ne ma képp ku nekk Géejawaay man maa leen jëndal carte barkeelu. kon loolu dara fay ko. ay dara tamit noonu. Uh-huh. barki Serigne Touba ne ma sama mouvement Géejawaay laa bokk bi jëndal naa ñëpp carte barkeel sëñ Madoun say borom tawféex eh. damaa damaa dem ba mu jig sëñ góor a sëy. Mm-hmm. ñëpp ñoo xamante ni ñooy woote ci wàllu diine. Mm-hmm. ku ko yëg. da nga naan dama ci dugal sama loxo ngir rasulilahi. Mm-hmm. ndax loolu nga woote. ñëpp nga ko defal. jeex na barki sëriñ Tuubaa kon événement baa ngoog euh, ginnaaw ëllëg la 10 mai. Euh, di euh, journée xasaayid. ñu ngi leen ci gërëm bu baax. di ci woo nag taalibe yëpp ak képp koo xamante ni rek foog nga lool sëriñ Bamba mbaak njabootam.